maa balaa maa balaa maa romb foofu damay ñëw ci sama diggante ak Seydina Thioune Mara ma je suis un incompris dama la koy wax tey man man xam naa ni je suis un incompris man waruñu maa xam ci sama dund man duma ku ñuy xam ci dundam waaw man loo mën dund ci at mu néew ak mu bari sénégalais duñu ma xam parce que yàlla ñu ma pour ñu xam ma ñoom waaye bis ma génnee àdduna lañ may xam bis ma faatoo yàlla yéex bañ jël ma def ci jaag yóbbu Touba ca bàq ya ca la ñuy xam kenn muy Omaro waaye dama la yëgal na la lépp lu ma def ci Wally Seck sama kër ndey laa ko njëkkee man duma sàmbaalaar maara déedéet fii nga ma fekk sama kër yaay la ma toog di wax ca kaw sama yaay ngi ne toog jàkkaarloog man samay mbokk ngi toog samay ndijaay ngi toog samay jarbaate ngi toog samay cousin ngi toog samay moo naa ko defee sama kër di wax man kase ndax man rek dëkk mais dama la ne fekk ma sama kër yaay ngir li may wax sama yaay di ko dégg samay mbokk di ko dégg man duma sàmb alaar lu ma def ci mbedd mi ci fondation bi def ko ci mbedd mi ci Wally Seck ma Massamba ak dem sama kër ndey laa ko njëkk sama kër baay man samay mbokk dañu maa gërëm samay wajju dañu maa gërëm ñaanal ma samay rakk samay jarbaak sax dañu maa gërëm ñaanal kon man awma lu may def ci mbedd mi loo xam ne njëkkewu ma ko ci sama néegu ndey benn baa yëg nga ne Seydina Cuun mi ma jébbal sama bopp àdduna ak àllaaxira yàlla dogal bi bàyyam génne àdduna làkku ma yesu ci moom taalibeem bu yeewoo senegal jëf ju mu mës a woote la ci man